al Alfie alors elle m'a li mu indi tey am na j'allais dire bouffé fouetté mais du bouffé fouetté ça s'appelle plutôt euh, lan fouetté ça s'appelle bara bara bara quoi quoi quoi quoi torsadé torsadé au pesto jambon fromage bon je sais même pas bon qu'est-ce qu'on mange boursophia lañ ci àndal voilà beautiful girl. bu ànd ak vitamine yu am solo waxatuma la meew bi nga mën a xóoyal fajar gi rek mais beurre bi ñàkk koo raax ci sa mburu wóorul fajar gi wóorul de Pape Cheikh nee naa la wóorul te tabaski bi xam nga ni mi ngi ñëw <laughs> beurre Sofia ma xanaa waaw beurre a mooy beurre bi gën ci beurre waaw waaw xam nga tendance yi ren beurre yi tendance al beneen beurre Sofia fi ne beurre ah, Sofia Sofia fi ne da nga fi gis beneen beurre yow mu ne ma Pape Cheikh Diallo bàyyi li ngay wax yow da nga fi gis beneen beurre fii Sofia fi ne yow xanaa xamoo ne fii dañ fi gis dañ fi gis beneen bër bu dul Sophia yow. Sophia bi ne. Sophia naan Sophia naan Sophia rek. bër Sophia ngay toggee. waaw Pape Cheikh xam nga. xam nga ni tabaski bi mi ngi ñëw Pape eh. te xam nga ni <laughs> ba Sofia marinade bu mu bu mu gunge rek doo jël ndaare benn yoon Pape te xamoon ni xam nga ni waxoon naa la ko dinañ ci dinañ ñëw ci yeneen xeetu marinade yoo xamante ni euh, jigéen ñi mën nañ ko sàlloo ci tabaski bi ak ay xeetu recette yoo xamante ni ay euh, dog lay nekk di pour wan la ni beurre Sofia rek Euh, du pour mburu rek day dem ci dog yi ak yeneen xeetu togg yi nga xamante ni chaque jour day wane boppam donc euh, Beurre Sofia ñu leen di jaajëfal saa su nekk donc tey nag euh, comment bien qu'est-ce qu'on mange ñu fas yéene indi benn recette boo xamante ni c'est des c'est des torsades euh, fait à base de pâte feuilletée mooy base bi sauce pesto jambon fromage donc mu nekk benn recette bu assez facile boo xamante ni ku nekk war nga ko mën a réaliser sa kër soo amee ñaari rouleau pâte feuilletée yoo xamante ne mën nga ko jënd ci grande surface yi soo ko mënul defaral sa bopp wala nga dem ci sa boulangerie nga commandé li nga xamante ne mooy pâte feuilletée daal di koy étaler ba mu jox la épaisseur bu mel ni nga denc ko fi nga xamante ne mooy sa congélateur au moment de l'utiliser rek danga koy teel a génnee pour mu bàyyi nga mën a réaliser li nga xamante ni mooy recette bi donc sauce bi tamit am na ci li nga xamante ni mooy grande surface yëpp su fekkee mënuñu ko defar li ñu koy defaree tamit moom sauce pesto yi mooy basilic euh, pignon de pin huile d'olive ak li nga xamante ni mooy parmesan mën na ci dolli tamit benn doomu laaj daal di mu jox la sauce bu verte bi nga xamante ni moom la ñu am ci li nga xam ne mooy mooy pot bi donc moom la ñuy njëkk jël étaler ko ci li nga xamante ni mooy euh, pâte bi def ko ci pâte bi ba mu ba mu daj parce que moo ñuy andil benn goût boo xamante ni dafay assez exotique gis nga léegi li li Adja wax parce que sauce bi euh, en Italie ñoom dañ koy faral di utiliser lu bëri ci seen ay lekk donc ñoom ñoo koy réaliser seen bopp wax naa ko léegi da ngay jël basilic daal di jël li nga xam ne mooy laaj jël parmesan huile d'olive ak pignon de pin daal di koy mixé nag soo ko mixé moom moo lay jox gis nga xet bi xam naa di ngeen ko mën a sentir fi ngeen toog mais daf lay jox benn odeur bu assez assez parfumé odeur euh, odeur u basilic nga xam ne dafa neex donc moom la lay jox. donc suñ ko étalee nii ci li nga xamante ne mooy pat bi daal di jël nag li nga xam ne mooy jambon ak fromage mën nañ ko changer ah mën nañu def thon mën nañu def poulet comme mën nañu def li nga xamante ni mooy euh, viande hachée bu ñu togg c'est au choix donc nga jël sa euh, sa jambon parsemé ko ci pâte bi yëpp daal di koy tas tasar nga tey dama war a surveiller li may wax ndax tonton garmi tas ko ci pâte bi ba yëpp daj donc mu xaw la jox li benn pizza mais après dañuy changer forme bi ba nga xamante ne ku ci nekk soo koy lekk da xëcc rek lekk donc ñu jël li nga xamante ni mooy fromage bi def ko si dama mélanger euh, fromage gruyère ak li nga xamante ni mooy parmesan parmesan nag ku ne xam na ne dafa saf xorom moo tax gisuñu fi xorom gisuñu fi suukar donc beurre sofia bi tamit mën leen dimbali pour ngeen mën a defar li nga xamante ne mooy seen pâte feuilletée parce que dafay dem carrément ci li nga xamante ne mooy pâte bi mooy pat bi nga xamante ne moom la ñuy lem di ko lemmi di ko lem di ko lemmi ba nga xamante ne da ngay am nombre feuilletage bi nga soxla pour mën a am sa pâte feuilletée adéquat donc étape bi nag buñ ci tolloo dañuy jël deuxième pâte feuilletée bi daal di koy lemmi teg ko ci premier bi muur carrément pâte bi donc pâte bi dafa dafa comme ni ma ko waxee sànq dafa gën yàgg génn ci frigo bi donc moo tax dafa xaw a dafa xaw a dambat mais c'est pas grave donc dañ koy jël def ko ci kaw donc bii dafa toj ba mel ni kanamu Pape bi bii dafa tas comme sa kanam sama kanam dafa tas waaw ndeysaan ak uteeg bi muy doog a tàmbali façon image yëpp dinañ ko wane waat ay ay waay dafa jum waxuma dara léegi nee na sama kanam dafa tas <laughs> dama dara donc dañuy jël benn karaw poqataan bii ma dese day ba tey maa ngi koy sàmm donc dañuy jël pap bi def ko ci kaw. wallaay benn xale du daal di jël nag génnee feuille euh, papier papier cuisson bi nga xamante ni moom mooy maintenir pâte feuilletée bi donc on va essayer de faire doucement pour mën a raccoler morceaux yi. donc li mooy mooy euh, pâte feuilletée bi il faut tout le temps ñu koy garder au frais ba au moment ñu koy utiliser sinon. da ngay am problème yii nii moom ma am parce que dafa nekk pat boo xamante ni soo ko génnee rek ci endroit bu tàng dafay seey parce que beurre bi ci dem moo tax donc suñ ci noppee nag ci la ñuy ñëw réaliser li nga xamante ni mooy torsade yi donc torsade yi dañuy dagg rek ay bande ci pat bi donc dañuy ñëw dagg ay bande yoo xamante ni dafay mel ni soleil donc dañuy jógee ci centre bi di def ay ay trait muy wàcc ba am benn forme boo xamante ne day mel ni naaj ay rayon de soleil donc suñu paree nag tourner ko donc on va essayer de réaliser ko nii nii bu ñu jógee ci étape bi donc bu ñu détaché pat bi donc jéem ko rassembler waat buñ ko rassembler ba am cercle bi nga xamante ne moom la pat bi waroon am donc dañuy jël paaka bi rek jóge ci centre bi ginnaaw bu ñu ci tegee benn base nga xamante ni da ngay jël euh, pot bi natt digg bi parce que digg bi kenn du ko dagg daal di jël nag euh, paaka bi di def ay euh, maanaam ay trait muy wàcc sans pour ñu laal centre bi maanaam day des benn cercle boo xamante ni mooy nekk ci digg bi donc ñuy def ay trait muy wàcc donc suñu paree nag ci trait yi moom la ñuy tourner daal di moom la ñuy lem ba mu jox ñu forme torsade suñu paree duggul ko ci four bi laataa loolu ñu badigeonné ko ak li nga xamante ne mooy zone de bi ñu am ci ci plan de travail bi donc dañuy jël li nga xamante ne mooy mooy euh, première bande bi nga xamante ne moom la ñu am daal di koy tourner émission bi jeexee. ah non pourquoi on va badigeonner ba émission bi jeex nga xool. waaw da ngeen di badigeonné lekk bi. buy yow la ñuy badigeonné ba nga xam. waaw xamoo ñu sax xamoo li ñu décidé sax yow. léegi ñu jël ñu jël li nga xamante ne mooy xamoo sax li xew. mooy pat bi daal di koy tourné. Ah. donc soo ko tourné mu jox la benn benn toxtaade. badigeonné ba nga xam ni lépp ñu jël nag li nga xamante ni mooy jaune. ñun rek ci badigeonné. jël ko tartiné ko ci pour mu jox ñu benn effet benn effet dorure bi nga xamante ni moom la moom la recette bi di laaj donc nii lañ koy defee ba yëpp yëpp ñëw dommage que pat bi dafa tas parce que diñ ko génnee ci frigo bi biñ ko génnee ci frigo bi ak léegi dafa yàgg parce que non seulement frigo sax amu fi donc pâte bi looloo tax mu wàcc donc moom la ñuy jéem a lem dafa ragal ñu badigeonné ko. dinañu ko badigeonné badigeonné badigeonné non ñu jël ko léegi dañ ko jël lem ko. <laughs> amoon na frigo xam benn ban waay moo ko fi yóbbu <laughs> waaw non frigo bi moom bi ñu reprendre ba léegi frigo bi nekk <laughs> frigo bi moom bi ñu reprendre ba léegi non mais amoon na fi benn frigo bu doon traîner fii waaw amoon na bu doon traîner mais mais yóbbu nañ ko moom xam nga ah, yi yóbbu dafa bëri donc boobu itam démarré na démarré na ko dañuy jël dañuy continuer recette bi le temps que ñuy terminer enfourner ko bàyyi ko lu jàpp 30